yéen ñëpp ñu à travers votre chaîne bi nga mhm. ñu ah la mhm. ah comme ni ma ko waxee. Mhm. ne il n'est pas de teew nga bëgg di nekk di nataal. loolu mënta ne. nuy neen leen ziar neen leen bëggee. safoo ndamoo tiitaroo. tey nag ñu ngi ak yéen fii ci Prod. wóyale émission euh, bi di Bégué. Bégué. info. ah bi Bégué info nag boo ko déggee mooy maanaam man mi xam ne damaa të damay Bégué war war leen a jox ay information oh. comme ni ngeen ko déggee koo xam ne man ta ne day joxe information fii maa ngi dee ak. xeetu denc. waaw ah. denc bi nag denc bi yaa ndeysaan ndeysaan euh, voilà mu noonu ah ba tax na dañ chaque jour da ngeen indi trois titres. Hmm. tey suñu premier titre mooy euh, dégg ngeen ñu naan Jomaay mooy Sonko. Hmm. Sonko mooy Jomaay. deuxième numéro bi ñu ñëw si borom bopp bi nga xam ne dafa ñàkk karaw mi kat. Aba Sow. Aba na stress ak Cheikh Sarr. troisième numéro bi mooy revue de presse. revue de presse. ma loolu xam nga bàyyi nga ne ma fekk. ah foofu service de presse yow bii d'accord ko xam ne man foofu ma rër de presse jox leen information yoo xam ne maa leen ko njëkk a jox muy lu passé te yow yow yëgoo leen ko muy luy waaj ñëw te man maa leen ko war a eggee war a ànd léegi nag papa la ah. dañu daal di mais loolu. bébé Bégué info. maanaam maanaam pot bi rek da lay may envie. dëgg hmm. eh, eh, de bul ñam rek téye ko foofu bul ñam rek téye ko doo ma ñamal doo ma ñamal. toog dafa nooy nag léegi ah, ko ah njëkk mi ngi lay ñàkk bàyyi nga ne liggéey dañuy liggéey nit nga xam ne da nga liggéey ah suñu jee ci titre bi di di di. man hmm. di jàll bu ma lekkee. Hmm. te lekk baaxul biir biir métti lay jaar kay a lekk kay mën a wax léegi non daa la nga wax mais suñu premier numéro mooy Diomaye ak Sonko mooy suñu doon waxee Pape loo xam si Diomaye ak Sonko. <laughs> lu bëri lu yaa. Ah. lu ngande. Ah. lu am histoire. Ah. dëgg lii day permettre ma gën a am inspiration. di gën a la wax di gën a exercer li ngay a xoolal lu neex. di la nar a waxal nag si diggante bi nga xamante ne. pour sa ab woon ne dara xaju diggante.

Grand section, mhm. moins section, mhm. bas jardin. CI. Mhm. Jaxaar Moussel. sell bi. le Sidina Ousmane Djeldos. C'est di mon comparé, ne nom impossible incomparable. parce que nous sommes dañ Je ne wel. ñun ñoom ah eh. yéen yéen yéen yéen ñu koy dégg. Eh. voilà ñoom ñu ngi dégg doucement. ñoom ñu ngi dégg yéen may dégg nga dama yaram moo tàng xam nga diggante bu neex man loolu dama neex. mais nag dégg naa si ci réew bu bëy. Hmm. Euh, Ousmane Sonko danaa jugee Casamance. dem Ndiaga Diaw. Ah, ah, ah, dégg ma Sonko danaa jugee Casamance. Bassirou Diomaye jugee Ndiaga Ndiaye ñoom ñaar ñu daje xam nga fa leen daan daje est-ce que xam nga fa leen daan daje foofu nga waroon a laajte nag xam nga ko ci Seydina Ousmane Sonko mooy jóge fële sa Ziguinchor Diomaye jóge fële sa euh, Ndiaga Ndiaye ñu daje benn dëkk dëkk boobu ndax xam nga ban dëkk la foo rek <laughs> classe bi nekk foo rek fan wala wala boobu Pout leen daan daje oh. seen école Pout la nekkoon ko bëri mango pour fa pour, pour pour pour pour ak de pour, ak pour, pour, primaire. secondaire. bac. route de pour, pour euh, ah. secondaire. pour, pour, pour bac. <laughs> Ah. Ah. Euh, scolaire bi kon diggante boobu daa yàgg. kon lépp loolu nga xamul woon. xam nga ko léegi nag. ñu ñëw ci deuxième. macha allah macha allah. deuxième bi nga xam ni moo lëmbi instant bi jamono ji. Hmm. c'est international. Hmm. muy lan wàllum xëccoo karaw ndax Aba. Hmm. nee na am na karaw. Cheikh Sarr ko mal ëppale karaw moo tax may sol. mbaxana loolu loo ci mën a wax. lu bëri lu rëy. lu yaatu ñaari diggante yooyu mbir am na séance ndax Abba karawam baa ngi fàttali ko anecdote li yóbbu woon karawam lu doy waar la ndax dégg ko fàtta Abba ndel moo ko jigéen maa ngi fàtte je me rappelle bi muy doog a judd premier jour bi muy wattu ndel xam nga lu mu ko temps yooyu lii liñ naan. lañ set euh, dafa yoon dafa. dafa dangereux ah eh, dafa dangereux yow la mu dëggal dëggal fi yow doo bàyyi dëggal fi naan ay dafa dafa rax yow lañ set da nga ko mos a gis mu rax lañ set mag la ngaa rax te su gémmañ ma ay espoir wala nga wax wax. <laughs> xam nga man dama xam lu bëri nekk expert la toog fii di la expliqué di expliqué gars nga bëgg ma fontoo man dama xam morom dégg abaa ah, paaka leen ko waxee paaka dafa am tooke mhm. looloo dindi nel bi indi ko nel comprendre mhm. mu taw mooy bi muy raam mu këpp ko si bopp bi waaw karaw gi watu nag boobu ba léegi ñuy xëcc karaw gi loolu def nañ ko diw nañ ci beson produit boo xalaat diw la ko si bopp bi karaw gi ñëwul moo tax looloo tax muy sol ba xam sa naan dafa am karaw. non non non non non non duulin ju tàng. bañee la bañee la bàjjanam doon saaf. Ah, bañee ah. léegi nag muy ñëw chaque jour danaa ñëw jël sa bañee. dafa voilà dafa soboon dafa soboon dafa soboon léegi ni muy demee di jëli bañeen mhm. si la bàjjan bi nag yemoo bàjjan bi génn mu fekk ko fa ne muy yuutu pool ba nag nekkati duulin jaar sa ne loolu duulin jooju la sangoo dégg mais ba mu ko sangoo nag diggante bii rek la affaire laal mhm. foofu yëpp wat barale ah. fi mu ne diw neen si qualité li ngom loo xalaat diw neen ko si pour ñu dee. barale ah, mu moom moom barale barale parce que moom bu ba pare rek ci bi day. fa macha la bi dañuy daal di avancé si li nga xam ne mooy euh, lii des mooy revue de presse. bébé Bagué.

moom kan. ah, ah, ah, moo la defal lii man moo tax man ne la il góor la te kabila te kampala ah rek a tagale de on y va on y va on y va bon il se nomme elle se nomme tout simplement la bégayeuse oh oh oh oh oh, oh bi li ci tabaski Ousmane Sonko génne décret ba nga xam ni mooy wane ni képp koo xam ne jaaykatum xar nga si tabaski gii gi di tabaski 2024 na nga yam sa dëkkuwaay maanaam sa loolo sa sa loka lité ndax gis nañ ni transporteur yi nga xam ne dañuy indi fii ni ay li xar ay xar fii si Sénégal rawat na Dakar Dakar ñi nga xam ne dañ Mali ba Mali ba Mauritanie ñoo indi embouteillage bu bu bu bu métti bi nekk fii ba tax ñi nga xam ne dem Tabaski gi jour Tabaski ci suba moom la ñuy egg seen kër ba tànn waa Kër Massar daal di koy def oh, oh. occasion daan ne alhamdulilahi alhamdulilahi rabbil alamin ndax gis nañ ne si koy tegi ñoom ñoo ñëkkoon na gis li weer daal di bëggoon na njëkk ko autorité fa yàlla euh, mu da damay wul noonu wul noonu si tabaski gi ñu ne kon alhamdulilahi rabil alamin képp koo xam ne yaa ngi ni yeewoo fii si li si kër Massar di jaay xar fii si kër Massar bul jéggi sa sa sa di dem feneen ba tax na ah dama ne képp koo xam ne taaw nga na nga ndax ku amul xar ma ku amul xar sa baay dina def na Ibrahima defoon Ismaila kon alhamdulilah rabbil alamin ba man bi nga xam ne man daat la. Papa la la la la. Ah, cuk kis. Kin tak kin kis. Geja geja kis. Lil. Nik di lil ada kis. Kin kis kin geja geja. Kita tak kira lil la di di lo. Limone koro robi. Robi da barat kis. Tak kira kita. Bege efo kis. Ingin tak. Murah. Apa? Gembek tadi. Murah. Asam di. Murah. vingt et une heures vers Këyrin bi. ku bëgg a bokk vingt et une heures. ñëppal samedi. vingt et une heures. ku bëgg a bokk. ñëw. ah ba demee.